jàmbaar nga laa wax kon la parole bulaya saya kita ya saya Thierno Moulé ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo kilifa waajuru Ndoy lébu traiteur colonel Ndoy di ci teg bàjjen yi ak imam beeg ñëpp di nuyu nag sama xarit di sama soppe di soppee ki nga xam ne tey moo ñu fi yebal muy alaaji Thierno Moulay Sow ñu ñëw fi nag ci ndigal ndigal goo xam ne nii dafa jóge ci jëmm ju tedd jóge ci sëriñ jóge ci kilifa sa wax na ko léegi fajkat boo xam ne ni kenn dootu ko nattable ci senegal Afrique ak àdduna te au-delà de la dimension sociale de El Hadj Thierno Moulay Sow waxuma faj yi muy faj waaye muy def ci askan wi di leen dimbale wax nga dëgg koor gi paase rek 111 millions la génne daal di koy séddale ci doomu aadama yi mu yebal ñu nag ñu ñëw ci bés bi nga xam ne nii bu amoon lu ko gënal te jotam may ko ko moom mooy déplacé ndax ndoy seq na ko moom waaye gis ngeen ko ci image yi fan yi yëpp. dafa demoon vacances nekk Dubaay yóbbu njaboot gi yëpp mu ñëw nag am ay urgence yum fi fekkoon ci kër gi il fallait que mu régler urgence yooyu mais bu du noon loolu ndoy sëriñ bi nee na moom mooy taal otoom ànd ak soxnaam ñëw fii fekke sa bés bi parce que jaral nga ko ko kon nag nee na mu ngi lay ndokkeel ci bés bi jël délégation nag tànn ki nga xam ne ni tey mooy loxo ndeyjooram di loxo càmmoñam di secrétaire particulier am tey sëriñ bi yar ko tey boo ko gisee rek mel na ni gis nga sëriñ bi muy Alfousseyni Sylla mi toog moo jiite délégation bi a ah mu ne nag mu ngi leen di ndokkeel ci bés bi di am kontante bu baax di seedeel mbooloo mi nag ne diggante mag ndóoy diggante bu dëggu la ndax Ndoye dafa fonk liggéeyam dafa fonk li muy def bëgg ko te di ko def avec beaucoup de professionnalisme te moom comme que liggéeykat la amul guddi amul bëccëg su gisee ku mel ni dooy daf koy jàpp ndax qualité de service bi nga xam ne Ndoye mu ngi ko koy offrir. sëriñ bi ba mu xamee Ndoye ba léegi événement bu mag bu jot Ndoye mii lay woo waaye nag su sëriñ bi demee bay oo Ndoye am confiance. ci qualité li muy def nag dafa am koo xam ne ni nag moom moo ci gën a jàpp muy madam Sow la princesse parce que sëriñ bi birneel na ni te seen Seyni ngi nii di toog je parle sous son contrôle sëriñ bi mu moyee li ko xam ne ni soxnaam moo ko koy toggal ci loxoom mu di ko lekk ndooy mii rek lay lekk ay toggam ndax dafa xam ne ndooy qualité service am foo ko natt rek feesu na ko en tout cas mu ngi kontaan bu baax ci mbooloo mi di wax ne diggante mook Ndoye vraiment relation yu sincère moo ci nekk relation professionnel moo ci nekk di wax ne daal kontaane ci mbooloo mi du ma guddal nag damay daal di bàyyi al Alseyni mi nga xam ne moom mooy chef de délégation mu am ay kàddu yu ñu ci toftal gannaaw bi ñu yóbbante bi euh, Alseyni yëkkatee yóbbante bi jox ko Ndoye nag ñu mbooloo mi ñu ngi leen di euh, nuyu encore di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay sëriñ bi daal nee na kontaan na ci ndóoy ndóoy daal am ndóoyam la Alfousseyni ñu jox la kàddu. Alfousseyni bi ma jotalee bi ma jotalee Thierno Moulay Sow. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di jiitoo nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila. Elhaj Thierno Moule Sow, le roi la médecine traditionnelle du monde le king aux kings le maréchal di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuy Madame Sow la di ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm di nuy prince Moule le futur de roi di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuy aussi délégation yi nga xamante moom laa fi àndal di leen ziar bu baax a baax macha allah di nuy kilifa diine yëpp kilifa aada yi di leen ziar bu baax a baax macha allah di nuyu suñu papa bu nga xamante moom lañ fi fekk fii di ko ziar bu baax a di ko ñaanal jàmm di nuyu ndooy bu nga xamante moom moo waral suñu teewaay fii tey di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm macha allah moom ak soxnaam yëpp. vraiment di am kontaan ak mbette bu baax a baax noonu eh, suñu teewaay bi si bis bi donc dañoo bàyyi ak suñu ndigal El Hadj bu Moule Solo kalifa général de Djinn donc si lépp li li ñu si dog aussi si tànkam la ñu si dogee macha allah moom moo ñu yebal mu ne ñu ñëw représenté ko fii si bis bi ndax ndoy Traiteur diggante moom ñoom ñaar dara xaj si macha allah donc depuis bu la yàlla boole boo léegi mu ngi rafet macha allah mu ne mu ngi sant Ndoye bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm mu dee sax fekkoon ne moom nekkuloon si yoon euh, vraiment waroon na. te waroon na ñëw fii si bis bi mais day fekke ne sëriñ bi dafa demoon Dubaay nekk foofu un mois sept jours moom ak njaboot wi barki Demba njaay lañ ñibbisi macha allah instant nii dañuy dallu moo tax mu yebal ñu pour ñu ñëw fii tey donc macha allah ndooy na aussi buñ ko xamee boo léegi macha allah mu ngi rafet ndooy nit ku baax la nit ku oyof la nit ku nga xamante aussi jàmbaar la si liggéeyam. donc loolu moo tax sëriñ bi fonk ko saa bu sëriñ bi kewalee macha allah du xalaat kenn bu dul ndooy ndooy mooy ñëw defar lépp moom tam mu ñëw ànd ak équipe bi def ko ak yéene lépp lu mu si mun mu def ko macha allah donc mu fonk sëriñ bi lool sëriñ bi fonk ko lool macha allah loolu moo waral suñu bis bi donc dañuy ñaanal ku nga xamante moom lañ fi tuddi tey yàlla na am ndey ak baay yàlla na dund boo. ñu fekkee ay njëriñam macha allah di ko ñaanal euh, waajuram yëpp macha allah. donc vraiment El Hadj Thierno Moule Sow moom kenn du ko présenté fii Sénégal c'est le calife général kullu jinne kullu médecin traditionnel du monde képp ku nga ama képp jinne bu yàlla sàkk si àdduna bi si lokaam la nekk macha allah yàlla moo ko wàccee macha allah pour mu jàppale nit ñi si zaahir ak si baatin jinna seyaatin yi nga xamante ñoom ay njabootu iblis lañ dañuy dugg banu aadama yi di leen di sonal di leen di yàkkal jinna yooyu lay xeexal macha allah daal di leen tuubal eh, dugal leen si diina lislaam ñu bàyyi def luy bon di jaamu yàlla jinna yëpp dañuy woor dañuy julli dañuy umra macha allah dañuy def lépp macha allah ay jinna jullit lañ social aussi yi muy def si Sénégal yaakaar naa ne yëpp teg nañ seen bot macha allah weeru koor bi passé El Hadj Thierno Moule Sow dafa débloqué woon cent onze millions macha allah jënd ko si dund ceeb diwlin tàndarma lépp luy dem macha allah mu woote Sénégal lépp képp ku soxla wàllu sukar koor na ñëw ñu jokko te ñi fi teewoo yëpp macha allah kenn ku nekk kenn ku fi teewoon macha allah jëlee na wàllam. kon vraiment sëriñ bi dañ koy sant rek di ko gërëm macha allah vraiment di ñaanal yëpp jàmm aussi vraiment di nuyu aussi association Thierno Moule Sow Family Darou Life international di ko dalee si jëwri boo suuf bàyyiwuma kenn di nuyu aussi association Thierno Moule Famille Darou Laye pour le développement et l'entraide nationale di ko dalee si jër yi aussi bàyyi ma kenn association Thierno Moule aussi bu Sénégal bi eh, di ko dalee si jër yi bàyyi ma kenn macha allah vraiment di am kontaan ak mbette bu baax di jégalu bu baax macha allah. kontaan naa trop. na kontaan na trop. ndax boobu léegi bëgguloon sa jël kàddu wax. ku ne teew nee na fii ku ne teew na fi. woote nag ñu ñëwal la. nee na woote nag ñu ñëwal la. nee na loolu suñu borom ko man nee na loolu yàlla moo ko defal. damay nee na day jiital ci nuyoo bi ak sant. nee na waajuram bii toog. muy pa ma Iba Ndoye. di commandant colonel de la nee na di bàyyi ci moom bu sës rëg nee na yar ko nag na nag lu bari mënuñu ko wax fii tey nee na waaye moom xam na nee na ku dem wakaam fekk ko fa di nga xam ni moom kilifa la ak feneen ak feneen ci àdduna ak service na partout de la Sénégal nee ñii mu àndal nee na kii moom bajjanam la. man sama bàjjan nee na ndoy nee na yow bàjjanam nga. ndax lépp moom la moom la ndax moom fekk na lépp. soxnaam nag tata nee na soxnaam nag tata Seynabou. bi ñëpp bañee ni mukk déedéet. nee na bi ñëpp bañee ni mukk déedéet. dafa jël kopparam teg sama maa ngi dem màkk. nee na dafa jël ay kopparam teg ci loxo ndooy daan ne ko maa ngi siyaare ji yonent yàlla Muhammad ñii di wax ñii di jàpp ñii di def. ñii wax ñii di jàpp ñii def moom mu gëm rek. mu jëm ñëw mu dem ñëw yàlla may ñu defar nee na mu dem ñëw yàlla def moom mu defar yàlla defal ko ndam. li ci topp nag ay cant la fi nekk ñëpp. nee na li ci topp nag ay cant la ñi fi nekk ñëpp. waa kër Gana Kebe du leen sant. waa nee na du leen sant. démb Gana. nee na démb Gana. daf ko woo ni ko. jëlal numéro bii nga oo ko téléphone. jëlal numéro bii nga woo ko téléphone. ma oo kooku ne ma ñëwal am na lu mu la tegal fii. nee na mu woo ko mu ne ko ñëwal am na lu mu la tegal fii. ma dem fekk fa xar mu 300000. nee na mu dem fekk fa xar mu 300000. te man nag jëndoon naa xar mu mag teg nee na boobu nag jëndoon na xar mu mag teg ci. ñaari xar ñu boole muy ñaari xar ñu boole ko ngi nii ñu dama koy sant di ko gërëm. nee na mi ngi koy sant di ko gërëm. ak waa këram yëpp. ak waa këram yëpp. waa kër Thierno Moulay Sow. nee na nag waa kër Thierno Moulay Sow. dama ànd damay ànd ak ñoom. nee na moom day ànd ak waa kër Thierno Moulay. ndax sëriñ bi day sama sëriñ. nee na sëriñ bi mooy Thierno Moulay day sëriñam. day sama xarit. nee na day xaritam. ba anniversaire bu mu koy def. nee na ba anniversaire moom bu koy def. su ma ñëwee bu amee programme bu mu ñëwee daf may jox cadeau anniversaire. nee na bu amee programme moom ndoy bu ñëwee alaaji Thierno Moulay da koy jox kon anniversaire. sukkaru koor daf may yónnee sukkaru koor nee na sukkaru koor alaaj na mu lay da koy yónnee mënoon na liggéey rek la ñu séq mu fay ma ma dem nee na mënoon nañ ko liggéey rek la ñu séq mu fay ko mu dem waaye mosuñoo waxaale li ñuy liggéey waaye mosu ñoo waxaale li muy liggéey ak moom. te saa yu may na te saa yuy dem mu yëkkati paas tegal ko ci. li muy jox ay employé am xaru tabaski. nee na li muy jox ay employé am xaru tabaski. ak ay jasneer. ak ay jasneer. da ciy boole ma ak sama soxna. nee na da ciy boole ndooy ak soxnaam. kon bu ñu teewee fii. nee na kon bu ñu teewee fii. da leen di sant ak gërëm. di leen ñaanal yàlla nag. di leen ñaanal yàlla nag. lépp lu muy def yàlla na yàlla teg loxo. lépp lu muy def yàlla ci yàlla teg loxo. ak njaboot gi la ren. ak ak prince Moulay. ak prince Moulay. ñëpp nag di leen ñaanal yàlla fu mu jëm. nee nañ nee nañ ñëpp nag bu ñu ñaanal yàlla fu su sëriñ bi dem. yàlla na ci yàlla teg loxo. yàlla na ci yàlla teg tam. jiital ci imam nga xam ne moo fi teewoon léegi. nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi imam bi nga xam ne moo fi teewoon léegi. ah dégg naa fi aussi ay sant. nee na dégg na fi aussi ay sant. dégg naa fi ay dara. ay dara. papa Ndoye nee na dégg na la fi. sant fi sant ay dara. nee na dégg na fi sant ay dara. ñun ñëpp si yonent bi la ñu wékku. nee na ñun ñëpp ci Seydina Muhammad samaam rek la ñu wékku. dégg naa fi aussi Mbacke. nee na dégg na fi tamit Mbacke. ñun ñëpp ay taalibe lañu. nee na ñun ñëpp ay taalibe lañu. Ah, te di gërëm rek euh, mbooloo mi. nee na mi ngi gërëm mbooloo mi. parce que suñu doomu xewle. nee na parce que suñu doom xewle. ñëpp ñëw. ñëpp ñëw. di merndeel. di berneel. di jàppale. di jàppale. di foddiree. di foddiree. tudd suñu doom. nee na tudd suñu doom. di sët si man. di sët ci moom. tuddee ko ku baax nag. tuddee ko di xaritu suma doom bi di xaritu doomam ji. gisante naa moom si ngénte li passé si mariage bi passé. nee na gisante naa moom ci mariage bi passé. ñu jox ko cër bu rëy. ñu jox ko cër bu rëy. ñëwaat tey joxaat ko cër bu gën a. ñu ñëwaat tey nag joxaat ko cër bu gën a rëy. donc loolu xam naa ne seen diggante ñoom ñaar. nee na donc xam na ni kon ñoom ñaar seen diggante ñoom ñaar. diggante bu dëgër la. diggante bu dëgër la. bu soree sori bu la. donc di ñaanal xale bi nga xam ne moom la ñuy ngénte tey. nee na ngi ñaanal xale bi nga xam ni moom la ñuy ngénte tey di Balla Mbaye. yàlla yàlla saxal ci lislaam. nee na yàlla saxal ci lislaam. may ko wërsëg bu ëpp njortam. may ko wërsëg bu ëpp njortam. mu teral ci ay waajuram mu teral ci ay waajuram yëpp. ak fekkee ak tal. ak fekkee ak tal. vraiment tey suma xol sedd na. nee na vraiment tey xolam sedd na. ndaxte suma doom bii di euh, toog nii. nee na doomam di toog di ndóoy. jàmbar la. nee na ndóoy jàmbar la. ba mu nekkee xale. nee na ndóoy bi mu nekkee xale. la ko yàlla yiir ci liggéey. la ko yàlla xiir ci liggéey. muy ñafe. muy ñafe. tëba ko jóg di tëba ko jóg ba yàlla indil ko teraanga ji ba yàlla indil ko teraanga ji lépp lu mu am aussi mu ko séddoo ak ñoom nee na lépp lu mu am ngi koy séddoo ak mbokkam donc euh, Ndoye Maram nee na sa baay nee na Ndoye Mali Maram yal la yàlla taxawu nee na yal la yàlla taxawu yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale foo jublu yal na fa yiw yàlla jub Ndoye sa baay nee foo jublu yal na fa yàlla jublu alhamdulilahi rabbil alamin nee na alhamdulilahi rabbil alamin bu fekkee suma sœur bu fekkee ci bëgg a wax jox ko moom mooy bàjjen bi. nee jox ko ndax mooy bàjjen te bàjjen ay baay. waaw macha allah waaw comme li ngeen ko déggee léegi rek macha allah si ndigal sëriñ bi la ñu ñëwee waaw moo jokk ñu li nga xamante moom la fi moom la mi war a jokk ndooy mooy ñaari enveloppe euh, beneen enveloppe yi moom sëriñ bi moo ko def euh, beneen enveloppe yi boobu tam euh, madame Sow moo ko def pour ñu jokkoo madame Ndoye donc ñaari enveloppe bi moo nekk nii. soxna na la jig te macha allah bi moo la ko jox. macha allah ndax nee naa ko sëtu maam Serap Fanga. foo dal dina am moo ko jox madame moo tax ku xam xew taaw ak xew mi xam ne wute kontaan naa trop li yàgg na ko def ci man du tey du guléet lu ma mos a xel ne sëriñ bi joxoon ma enveloppe madame Sow jox ma enveloppe dama ko ñaan yàlla lépp lu man yàlla na ko yàlla gën a man loo waat ci barke naa bëgg naa lool nag macha allah kon nag mbooloo mi loolu lañ leen indiloon tey ci jataay bi fii tey ci tudd doomu euh, Ndoye traiteur di xaritu sëriñ bi di wëlale sëriñ bi gannaaw ba ñu sëriñ bi yónnee yebal délégation Alfousseyni jiite ko kon nag ñu ngi sëriñ mu ngi ñaan yàlla xale bi ñu toog booy fekkee njëriñam comme ni ko Alf Séni waxee te ñu bañ a wute dara di leen nuyu di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla gën a dëgër sa taxawaay merci